balaa ngay gëm Jésus Christa nit ku nekk war na dox te nekkat nit koo xamante ne won na bakkaar gannaaw te mu dox ci leer gi te booy dox ci leer googu Jésus Christa bu ñu gëm daf ñuy jox ñu deddu coxorte ak ñaawteefi àddina te di dox ci lumière gi dootuloo nekk kiy dox ci lëndëm gi waaye dinga nekkati kiy dox ci leer bi xel mu dina la jàppale te dina la gindi te dina la may bi nga mën a dox ci yoonu yàlla